diggante ak seen diggante ak sëriñ bi ndax moom nag fi nga koy gis nii benn bëgg-bëgg rek la am muy sëñ Touba benn jubluwaay la am muy sëñ Touba lu ko waaye di wax wax ko ci sëñ Touba ku koy naxit nax ko ci sëñ Touba ndax dafa bind sëñ Touba ne wokk wakil lii wakil bii wasiilati wa nixmati faridati naafilati sabiliyal mu xaw bi daal dafa ne yow sëñ Touba yow laa bëgg yaay sama soppe yaay sama sëriñ yaay sama wasila waaye sa biir yel mu xaw am yoon bi may jaar yow yaa ko am lii ngay sàkku nag moom bind na ni sëñ Tuubaa ko man dafa ne man sarafoo nay lal naa aw sarafoo nay lal xulaa fal yottu ban na xaw sal waraa xaddima pari lii ma mi wax na koo xam ni da ngaa bëgg xéewal mbaa nga bëgg ak pal nee na bul dem fenn fal na xaw sal waraa demal seeti kii di dimbali jaam ñu ne ko koo koy kan mu ne xaddima xayri lii ma mi mooy sëñ Tuubaa mi xett la fekk kon ñëw gi nga fi ñëw tay indiwaat beneen casquette muy mbokkum taalibe nu bokk sëñ Touba rawatina nag nu bokk dëkk bi ndax sëñ bi day wax day faral di wax ni bu bu bu yonente bi ne xubul watani minal iman bëgg sa réew daa bokk ci ngëm kon léegi bëgg sa réew moom ci lan lay bokk kon nag nga xam ni kër gi sa kër la man nga fee yeewi gan ñi man nga leen a dalal ñi nga àndal ñëpp yow lan fekk sa tey ñii ñuy fekk seen mel na ni yow lañ fekk si ñu lay sant la gërëm ci jéego yi nga xam ni yëkkati nga ko ndax ñii nga àndal ñëpp rek wane na ni kër gi sa kër la ndax kenn ku ne ci ñoom ñii kenn du ko présenté ñii fi toog ñëpp kenn ku ne diggam ak sëriñ bi ak diggam ak kër gi kenn du présenté te ku fi mas a ñëw rek maa mu dox fi ci sa jéego la ñëwee ak ci say tànk ak ci say taxawaay dalee fii ba Touba ak fu ne ci àdduna bi lii wane ni lii ah sa diggante ak sëriñ bi nammeelu seen Touba la mooy fenn fu ñi ngi nemmeeku ak di saytu diggante bi ci kilifa yi di fenn fa ne fasanti ko ci mboolem réew mi ak ci diine ji ak ci tarixa bi hmm. kon daal sëriñ baa ngi lay sant mi ngi lay gërëm ci teewaay bi nee daal nga dalal sa xel bu baax xam ne daal ci nga jublu muy sëñ tubaa am na lépp te na li gën ci yow sëñ tubaa dana la ko defal jërëjëf sëñ bi nee nañ da ciy dolliwaat rek ndax boo bàkk tey jii nee na kilifa yi ca Touba. ak wëllëre yi ak xarit yi. ak na yow yow xam nga. nee na ñoom ñëpp it. ñu ngi woote téléphone. ngir bëgg jotaay bu ni mel. nee na te fekk yow loolu sekk muy sa yéene. nee na ndax fekk na it. nee na lii nga naal nii. nee bëgg nga it ñu yëg ci. bëgg nga ñu yëg ci te yëgoo ci. kon muy lii nga tàmbali. yàlla na ci yàlla def ndam. nee na te yàlla def ci barke. te yàlla def ci sutura. nee na te la ngeen yaakaar lépp. yàlla na nu ko yàlla jotaleel. ci barke Serigne Touba. nee na nag bëgg na sax mu doonaat yeneen i jotaay. nee na jërëjëf. nee na xam naa ni nag yaa ngi ci joom.